ku bëgg am lu kenn amul ci réew mi mbaa nga mel fi nu kenn melul faaw da ngay seeti borom kéemaan mu defal lay xar baax wan lay kéemtaan Serigne du Gaynde borom kéemaan mi kenn réerewul ci réew mi ci réew mi ñu nekk ak ca bitim réew ñi fi mës a dégg daal yëpp xam nañu barab ba mu nekk ca kër Sàmbaraxi Njóobeen ca Saalum Serigne la boo xam ne lépp lu muy def ci alxuraan la koy teg rawatina ci aaya bi borom bi naan wanu nazila min alxuraan maa huwa sifaun wa rahmatan lil muminin borom yi jàngoro yi may bëgg tudd déglu leen ma wax leen redressement prostate góor yi télé bay teel a wàcc lal jigéen ñu taxaw ñu am doom sëriñ bi da ciy def ñaan yu am doole njabootu seytaane ñi yore faru rab wala sax coru rab ñi nga xam ne wërsëg la ñu bëgg ci bépp fan fathan kabiran ajilan sarian sëriñ Moodu Gaynde borom kemaan da ciy defi càngat yow mi bëgg a tukki lijjantim kay tëla ci réew mi wala da nga bëgg place place bi nga nekk da nga bëgg mu yokk cër ba nga fa gën a taw fii ni nga fa nekke yéen ñi nga xam ne seen ngeen ci réew mi ñuy takki jaaro dooni kilifa ci kenn dong lañu ko jëlee mots di kii may bëgg wax jaara buy dox ci wërsëg buy dox ci bayre buy dox ci ar la yow mi ko tak ba ci sax bo duggé di ci l'accident numéro téléphone bi 77 972 98 81 77 972 98 81 Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan ñi tekki mbañu man ci réew mi du ñuy gëj salam Kéemaan këram doy na war ku ci halin ba yak san bi ku si ke man ah ge moy sai sai da moy ko ku ne ku san bi ñu xit sen bay ko ku da fura c'est mon quartier bébé Aïcha chérie gaynde la soxnas ayun bay ke man ku ci ke sëriñ eh, ah. ba yegg sëñ ya bi ku si kéemaan yow benn kër ñaari sëriñ sëriñ kéemaan bëri xam-xam jàng ba ne ar ko ci maam waaye ak ñoo xit ñoom bay la ñu xamul dara teg di lëmën eh dëkke nangu ki naa sëñ bi waaye semu seen gardien bi du leen may dara fa ko fekk moom mi ngi toog ci buntu kër gi ah kéemaan këram doy na waar sëñ Mamour bu sëñ Abi bu sëñ mënu mi xàbbaan ah de dama jàpp yëpp di xaa laxasaayam nga joxoon laa sol nii waaw ah, man bokkoon ci doomi soxna yi fi ir man xam naa ne yaa jiitu te yaa ñu mën ndax ñi seen maam moo doon ci soxi seen i sëddi fi mu ne ñoo mën ci soxla yi waaw waaw maam moo rek teel na fi yàgg sa way wi nag neex na naa ko jox xale ñu partagé ko waaw ah, waaleykum salaam sëñ Maam Mor may ma baal ma rek baal ma waaw ngi si jàmm bu baax ça ah, nag àjjuma la ñaan lu ma naa rek non non man ñaan lu sax yow laa soxla woon ah maa jàmm bébé ñuul bébé ñuul ñuuxit sa mbëkk néeg waaw da nga ñuuxit ma xawma moom dañoo mës a tase mu ne dama koo neex mbéj nga ko da ngay ya moroom déedéet sax mbéju ma ko xam nga amul moom amul loolu yàlla mooy boole ay nit rek waaw ma bëggoon ko nag te yàlla rek tax bëgg ko sax laay wax yàlla def na mu def ma lu ma metti nag te hmm. dama ko invité sama kër dereseel ko table xam nga mom kuko jël lek rek ya ko mom ma def ko ginaar yu bax yi xam nga yenn bax bax yi ginaar kay yefi kilifa la xaa nga jox amburu ga loo ko joxee ginaar mo taxé señ bi reccu naa ko ah di ko reccu kay tax ba ma paree ci lool dama dugg ak mom fu bax bax ma ka futti bam set nga ni waaw sangu ya, ko nak lu tok? yo nga sangu ñor bu bax xam nga lu ray may ko deux pièces bu bax xam nga man tay fin la xalé 3D jongé do jongoma xam <laughs> nga man kuma massé jamono bayina ma xel ah, ok ñu la mag sa bayina la xel ok kay ba ma paree ci lool dal di koy massé lu baax hmm, xoolal yaa ngi dépassé il faut nga reconstitution dans la FA waam li ngay wax na leer ba pare nga diko ko jëf ma diko gis ba mako simé massé ko ba paré ah defal ko lu neex commencé jël sama wee man nak dumay pause Ah. yi dafa naturel. di ko xaw a dawal di ko wàcce ah ko misaal ci man wala. Ah, waaw moom lay def nii dal di koy xëpp soow. koo xëpp soow. jàppande fépp rek dawal naa ko sama. wala xanaa soow bari na ñoo xam xëpp soow am tuuti. di ko mar nànk naa la ñoo xam ni wax soow. moom yëg na neex neex. ñëw ba ci cus bi. ay eh, lan cus. càmmoñ ba cus waaw boobu la. ma am nu ma def ak moom bare lem ko maanaam daal fépp ko natt baax baax rek weesu na foofu bu ma ko jógee ma jël mante lan ma mante xaw a am lem ah. am nu ma dawaleeg moom ci yaram bi waaye mu doon baadoo la ba nga xamante ne yàgg na ci ñu fi def maa sàcc cent mille francs ñaar fukki waaw te man xam naa ne du ay du xalaatam dañ koo yónni. 100000. waaw. subaat ñu xit fay ma sama 100000 ma la yow mi sëriñam nga fay ma. ah déet man sama moom nga defal neex-neex moo ñëw ak yow ma ma man ma wax ko ñaar fukki junni dama ko am man. léegi xam nga wax ji lan la ah. man xam nga ne commissariat bu ma taxaw porter plainte waxuma plainte lañ may jox de mais oto bi la ñuy taal andi gis nga ma. waaw waaw yow it nag mënoo tooñ. déet. ah li ma waaw. yéen yéen daal ni ngeen def waaw kon sëñ bi nañ ko bàyyi ma dem police. ah déedéet bu dem police. sama 100000F wala léegi léegi nii lay def. waaw xoolal damaa ba nga déglu ma. ma eh, bàyyi leen nit bu bokkee ci nit. bu defee dara muy borom tur wala muy kilifa ngeen condamné kilifa ka luy loolu. ñoo xit moom moo ñëw ci moo jël sa ñaar fukki junni doo dem mu faara. comme yow xamoo ba ca yam nañ ci. ah déedéet taxawal. fekk ma gum te mu yor appartement ngeen koy jéem a fréquenté. man ku ma bàyyi di nga ma waraat. xale bu ndaw buy dox ba ah, dugg suma dootoo ko defati mi ngi nii yaa fukki junni doo ma fukk am nga saas. kon nag sëñ bi ñu def noonu. xam nga naa ñu dem eh wala taxawal sax xaaral baal ma rek borom àll bi laa bëgg. ci lan xaaral rek ñoo xam daa miim dama sama ñaar fukki junni yi dama koo leb la dañuy fay. waaw kon xaaral dindi verre yi bi gën a leer. waaw borom mu mel ne ñaar leer. yiwani sa gëna face bi señ bi xam nga ne la man aw ma taa booy photo nga photo eh ñaar fukk jundaa jo da ngay am ta ki bi zip bi acc ko ni ah wa problème la bëgg di wa kon ba muy neex xaaral ah, waaw est ce do ko jëlé ci suuf do ko def vidéo non non dafa nànk rek yow do mok la maa la man ma wax limay def ajal kiiwal baax na ne dafa nii sa tànk bi mel lu écarté sa tànk ah déet mu ngi bëgg a ëpp nag ñaar fukki junni di sëñ bi ñaar fukki junni yi ñu xite ko jël du dëgg waaw baax na bii laa lay may dernière bii waaw baax na bi yéegal ko mu feeñ waaw lupp fukki junni ñu xijal dina xam du ko booy waay nëttalu fii rek sama gañ ak bàyyi ñoo ko bu dële yàllal say baasal waa sëñ bi xaa da nga ay kuréel tey xam waaye ñoo ko yow nan sëñ bi sama keneen damay sa dama lay saag boo fi naree wax dangay man maa war a wax man. wala la. xamoo lan la yow ah. mais boo ma ko waxul lan laa koy xamee lan la. dangay ko. yow xale bu jigéen bu bu bu xel bu mool te mool rek. mool la eh donc ku la diw soow fan ko. soow si jus bi yaa ko tey yaa ko tey. <laughs> xaaral ay rabu laa nax ak xoolal man de new ma fi di kaf de sama ñaar fukki junni laa joxe. non mais non Ba sëñ ngay def. xaaral rek dina ngay mën a tuul xaaral rek. Hmm, man moo gën a da ngaa la lu mu mool saay saay na ko jël sama ñaar fukki junni. man ko dama lay yow yow da ngaa ñaar fukki man man koo ban xale nga war a jox ñaar fukki kii kan la. kii kan la ah kii kan la. kii jël sama ñaar fukki junni kii kan naa <laughs> non dafa naan. kay kat kat xam nga tax may ree Ah, man maa dem naa ko dem naa man maa dem naa ko man man mi ñàkk sama xaalis ci cagatu man maa dem naa ko man. dafal ndànk sëñ ma expliqué la. dafal ndànk la nga may expliqué da nga dul dégg dafal ndànk ma expliqué la. waaw ayca ayca. dafal ndànk waaw waxal bu ma leen dafal ndànk dafal ndànk bu nu insisté parce que man maa la mën maa la ëpp doole su ma la wooyee ci dal dalal. yaa mën a duur yaa ma mën yow yaa mën a fen. sëñ bi yow yaa mën a fen yow. kan la yaa mën a fen. yow yaa yow yow yow yaa mën a fen yow Keman, Gucci Keman Alin bayag sambi ko si Keman Ah, gaway say-say Tamoy pagkunig ko sambi nyo kitsan ba Selma gardien bébé Aïcha chéri Gueye nee na soxna si Alioune Mbaye. Kéemaan ku ci kéemaan Alioune Mbaye ak Sëñ ku kër ñaari sëriñ sëriñ kéemaan bëri xam-xam jàng ba ne